ñu bari dañu jàppoon ni li gënoon mooy ñu dégg kàddoom loolu bari jàppoon nañu ko ndax rendez-vous bi ku ne xam ne ni rendez-vous la voilà quoi lu ñu mënoon xaar la euh, mais li nga xam ni Lamine wax na ko itam mën nañ ci taxaw parce que euh, li nga xam ni moom la ñu euh, moom la ñu daan ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko ci corruption de la jeunesse daan ko ci ñaari ati kaso ak yeneen yoo xam ni sax teg nañ ko ci mm-hmm. mais dafa nekk loo xam ni man ragal naa ni ñi ko mës dégg bariwul. te man gëw ma ni ci prison Sénégal yi bari na ci ñoo xam ne daana nañu leen corruption de la jeunesse. ndax loolu du jox dëgg ñi ne éliminer un candidat rek moo ko taxoon a jóg ci àtte bii nga xam ne Ousmane sonk génn na ci. waaw jërëjëf Papa ngañ ma tàmbalee ci discours chef de l'État ci conseil des ministres Olof Ndiaye day faral di wax nii ku ñu gën këm. Mhm. am na dañu waroon a waxti waxuñu ñu am occasion ñu bari. Mhm. c'est vrai. président de la République ci conseil des ministres mu ngi massaw mu ngi jaale askan wi yemu fa nee na ñi ci loru yëpp na état taxaw taxawu leen kilifa nag waxuma sa président sa kër kilifa balaa muy wax day am élément yu muy waxee warul yegg ci foog naa wala yaakaar naa ci conseil des ministre am nee nañ ko defal état des lieux ci lu yàqu parce que buy wax war na am des éléments d'appréciation mm-hmm. te comme yàlla da ko may mu am ay banqas ay jumtukaay muy ay ministères ku ne nee na dafa liggéey bi ci war li jaaxal ni ñi kay mooy ak li am su mooyee xalifa ak quelques mesures Karim Wade gis naa communiqué am ak Idrissa dégguma keneen wax ko li ñu def kay mooy nañ jógaat delluwaat ak gone yi ci mbedd mi mhm. nit ku dese sago te bëgg réew mi waru la mhm. Mhm. ku ne lii métti na la waru la ba tax na ma jàpp ni sur cette question là li suma rakk wax léegi nee na dañoo dialogué dañ waroon ma ne ko le 31 ubbi la li mu wax ci ndaw ñi dëgg la mais Marème bañ leen ñu natt leen ci at ndax su ngeen demoon ci dialogue wóor na ma ni kuréel gi nga bokk su doon yebale ci dialogue gi dinga bokk ci ñi mu yebale ndax mat nga ko mën nga ko bu ñu leen natt rek ci at jeunesse identifiant bi nekk ci at bi jàpp leen ni ñun ndaw ñi ñoo war a téye ñoo war a bokk parti ba ñu bokk war nañ fa wane fulaak fayda ba bu ñu yebal yebal nu bu leen nangu nu bernu ne ndaw ñi fa nga nekk bu ñuy nant xam yi da nga war a bokk ci ñi ñuy natt lu ma gëm la lu ma foog la su ma koy wax xam ni dëgg la ci man muy man muy xafoor muy keneen loolu muy le discours du président bi mu ko waxee déggoo kenn ci ñoom ku ko ñaawlu 1957 ba tey 200000 archives nit yàq ko ci dëkk nit amul étudiant kenn ku mos a jaar université ku sa logiciel mën a nangu loolu du ay du ay étudiant ay nit la ay samba yu jéemoon nag yàq ci xel jàllul yu jéemoon dénigré jàllul yu ji ñu ñu yee fitna ndax bu yemoon rek ci université ñu ne xëy na. Lamine man dégguma la ci loolu de jante. ci affaire université bi waaw jàngalekat dégguma la ci de def ñaawlu ko. oui condamné ñi ko def. non non non Moussa s'il te plaît la ci de Lamine. waaw Lamine euh, Moussa maa ngi jégalu de. je vous en prie oui dégguma la ci de. bu ñu sakkee euh, université te yemul rek ci université am na ay écoles yu bari yoo xam ne dañ leen sakkee mi loolu kenn mënu ko rafetlu kenn mënu ko rafetlu bu ñu def. jàngat pour xam ñi ko def évidemment dañ ko war a def. d'accord mais dama ne ñi doon manifester. Mhm. contre ce verdict unique là c'est pas ces gens là qui ont brûlé l'université. d'accord d'accord d'accord. Euh, baal ma de Moussa Egale. Euh, xam nga ci xam-xam. Mhm. baax na. Mhm. buy xewee. su ma rakk daf ko wax léegi ne bu ñu demee passion mën goo xam ku ko def ku ko deful nañ maandu bàyyi ñi ko sanc ñu def ko am na nag lu polis génn wax na. xam nga munuñ koo munuñ koo rafetlu bokkul ak dañ ko condamné je parle de nuance munuñ koo rafetlu mën ngaa maandu toog seetaan rafetlu woo ko waxoo ci mhm. mais dañ ci war a wax ñaawlu ko ñu ko def ñu topp leen parce que c'est des bandits mhm. li ñu def université ku méttiwul tu n'es pas sénégalais ku méttiwul mosoo jaar université ku méttiwul mosoo jàng nee naa archive de 1957 ba tey nga jël lépp taal mu ne jëppit université Cheikh Anta Diop euh, euh, euh, bibliothèque ñu ne deetawaay fi ndox mi balle ni ñi war ko naan nga ne nañ ko yàq c'est des actes de vandalisme c'est l'appel à l'insurrection Papa Ngagne si nga réew mi suñu bëggee dem foog ñu ñemee waxante dëgg ñu waxante dëgg bi mooy il faut qu'on gis nga boo wootee yow ci mbedd mi ne génn leen bu ñu génnee dala dal xale yi tuyee responsable moral ndax yaa woote génn leen te ñi génnkat kat ma lay wax laaj ko say reporter ñi woote génn leen kenn génnul dañoo tëju seen i kër na xale yi buux leen ci mbedd mi ñu àll polis génn ni dëkk bi am na ay sàmba booy yu ci rax ndax ñun ñooy changer catégorie économique pétrole juddu fi gaz juddu fi ne naa la fii ci Mali am na ñu fa ne bu yàggul dara di jéem a fëgg suñu ay bunt fexe nu ñu faagagalee ñi leen may porox ndol ñu dugg nag luy njiit njaaga ñooma moo tax may saluer le président de la république bi mu àndeek dal di ci ànd ak moom di saluer suñu force de défense et de sécurité Pape gis nga fii ay xale yu topp auto police muy daw di arrière ñàkk bal ñàkk ñu fetal ñàkk ñu mais du loolu mooy seen rôle ñu ngi wax naan gis nañ ñu sol ay pap am na ñu woote fii de kër afor mu ngi nekk fekk dem leen taal ko yemuñ ci ñu gis ñu taal ay kër yi nit Farba Ngom man je peux citer euh, Serigne Mbaye Thiam je peux euh, Ba je peux citer ay dëmbooj ay dëmbooj je peux ku ñu taal sa kër am na xale yoo xam ne yow lañu àndal mhm. pap li may ñàkk ñàkk solo boobu am na ñoo xam ne bu ñu buggoon laal am na xale yu pare taxaw défendre ma ànd ak man parce que man la ñu amal ñoo toog sama wet beneen bi ñu ngi attaque la police Pape loo xamadi xamadi xam nga ni su weesoo maintien de l'ordre am ñu ci rax yori ngànnaay bu dee police dañuy woo BIP c'est les spécialistes pour ñu ràññee ñi ne ci biir manifestance yor fetal da di tiire suñu ay gone ñu mën leen appréhender bu dee la gendarmerie dañuy woo waa GIGN. te mhm. Pape xam nga ni ñooñu duñu ñu sol tenue mhm. liggéey boobu la ñu war a def. man li ma njëkk a jaaxul mooy li ñuy wax mooy troisième mandat li dee yëpp ñu naan bu mu def troisième mandat Pape balaa nga naan naam ne fa Pape kuy sénégalais war nga am kersa war nga am rus lii dara waru ko jar ci biir réew li ko waral nag mooy ñi woote li ni mel. ak corruption de la jeunesse voilà mooy corruption jeunesse ci lay ñëw li ko waral ak corruption corruption daan boobu aussi ci lay ñëw daan boobu nga xam ni xam nga daan bi daan bi at waaw lañ daan mhm. ki ñu daan fexe mu sori ndaw ñi ak xale yi xam nga daan dafa am lu muy su ñu dañu la tëj ñaari at rapide kaso mooy danger nga ci ñenn ñi waxuma de waxuma de Pape ñu ni dañu disqualifié euh, viol bi waaye tribunal nangu na ni gëm na ni seq am na ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko seqiñu sax woo xam ne ni wormawul diine nangu ko xalaat nangu ko ñu ne ci ay ay yooni yooni yooni yoon moo tax ñu doon laajal sax Adji Sarr ndàmpaay loolu explication décision de justice la mais li ñëpp war a nangu mooy ni yow man moom jante soxna si kii bu ñu amee problème tribunal lañ koy réglé waaye boo jàppee ni tribunal dara baaxu ci lu dul saa yoo soxlaa léegi léeg mën nga woo huissier ne ko kaay xoolal ma nangul naa la parce que am naa problème réew mi foo ñu am foo xam ne ñun ñëpp ñoo fa war a nangu taxaw fa taxaw bi mooy que ni su problème amee nañ ko réglé te pa ñaara mën a am ci àddina xelu waxtaan wala xelu waxtaan moo mun a am ci réew mi fi réew mi toll nag su ma déggee ñi naan ñu ngay dem marchat pap démb njaay pap famille yi ñàkk pap xale yi dee man ñu ngi may seetaan fee ci plateau am na xale dafa football ji woon jël balle perdue xanaa tey sax soo doon xelaat xëy na sax bu doon nit police dana tiire day tiire kuy manifester waaye ku demoon football yi dara dalu ci fii ci marché HLM ñu ngi may seetaan ku tëj kantinam bal ni ku réll mu àgg teer parce que xam nga Pape lan la jéem nañ ni nañ yóbbu Sénégal CPI ñu ne non CPI doo fa yóbbu réew nit nga fay yóbbu foog ñu créer laytaayu lu ñu la jiiñee Pape c'est danger li xew ci réew mi Pape war nañoo taxaw Pape la classe politique dans son entièreté a échoué Pape politique dafa réew la jarul reyante ñun ñëpp nag war nañ sóobaat suñu bopp ñu mais balaay loolu nañ taxaw ñu def rétrospection ñu ñu situer les responsabilité fu mu ci mën ci bokk moo tax président ni nay leer nañ ko leeral képp koo xam ne nii laale nga ci bokk nga ci actu vandal Pape ana mere président ana bañ troisième mandat ak toj banque Pape Auchan bu mu bii y a une semaine laa def enquête sur Pape y a deux mille trois cent jeunes sénégalais employés à Auchan Pape y a vingt deux milliards bu Auchan di fay impôt y a six cent fournisseurs yu liggéeyal Auchan ñu ni ko ràpp tëj ci lan man bu ma la jéppee bugguma la sama réew duma laal sa alal mais li am pillage la li am xale yi dafa am ñu leen di nax dafa am ñu leen di woote te gisoo ci kenn ci ñoom je kii quiconque wan ma ci télévision yi ci manifestation yi responsable ñoom ñu doon woo xale yi te ku ne nag yaa ngi jeñ sa doom jeñ sa jarbaat génne doomu jàmbur defal laa liste ñi ci gaañu amul kenn responsable politique bu ci dugal say doom soyons boo may ma yeggali je suis tellement courtois que du ma la dagg sooy wax sinon ma wax la boo paree ma yeggali dama bëgg a wax rek nii man déglu naa ne mën naa juum ci télé la mais si kii laa ko déglu Facebook Ousmane Sonko ni politi yéen xale yi bu leen benn politicien jaaral ngeen génn di joxe seen bakkan jàng leen dem dimbale seen i waayjur ñoom ak ñoom ak ñoom ak ñoom ak ñoom c'est différent du meilleur discours fi am fi ëpp yàqule fan la du Ziguinchor ah. fan la du dakaar mhm. Ziguinchor mooy fi mu nekkoon mhm. moom moo woote cokki fin Dakar moom moo woote gatsa sa du worma D'accord. Rectifions les tirs. Merci. Asseyons-nous autour d'une table. C'est là où je salue honnêtement le recul du chef de l'État et j'invite tous les partis, quel que soit le bord, Pape ñu waxtaanee réew mi. D'accord. Pape ñu ñu condamné nag ma koy xaar moom mi communiqué ndax yàkkamti nañ lool dara xew ñu def et puis Pape ñuy woo naan nañu woo international Pape France gii boo duggee ci kafe ñu tiré fa bal dañ naan attentat la gis nga li mbiru droit dem la ñuy teg fale pour régler les urgences pour ce qui Sénégal. pensons nos plaies discutons en sénégalais essayons de trouver des consensus forts merci Moussa dans l'intérêt de la <coughs> démocratie d'accord d'accord d'accord d'accord Moussa c'est vrai que xaw nga waxee ak dënn noonu